asalaamaaleykum wa rahmatullah kàddu yi santati rek ak soññu rek ndax dañ fee ñëwoon ci liggéey barkeelu si woon wër liggéey bi te nu njëkkoon fee taxaw di bëgg a seetal barab bi ngir tàmbali bañ tàmbalee ba suuf gi mel ne lu toll ci noppi ma ñëw fii fekk fi sëñ aatoog sëñ yusu fekk sëñ aatu ci bunt bi ñu taxaw ñu am ay laaj yu laaj ay waxtaan yu waxtaan ginnaaw mbir mi xewee fu ne yónnee nañu fa audio yooyu ngeen di ma fi ca fàttaliwaate ci sama wàggaru bopp di ci dund kóllëre gu ma am ak sëñ ci gis jataay boobu yi xam ne jataay bi jofeel la jataay bi kóllëre la ak ma sëñ doon ñaanal waaye tey bi ma ñëwaatee wërsiwaat liggéey bi dama gën a santaat xam ne ni ñu koy wax liggéey bi sëñ Tuubaa moom taxaw waxtu wu ne Pastef yee koy yor doxin yi mu ngi aju ci Pastefum ñoom ko dénk waaye fii Pastef bi fi nekk tax na bi ma ñëwee yokk gi mu yokkuwaat ak fa ma ko bàyyi woon xamee naa ci ne liggéey sëñ Tuubaa taxawee fenn bu ñu koy sàmmee Pastef rek muy gaaw daara ji xam nañ ne Pastef la ñuy sàmmee liggéey sëñ Tuubaa bi moo tax seen liggéey bii yéeme lool qualité bi ñu ko liggéey yéeme na gaaween yu yéene me yaa yooyu nag bu ñu àndee fekk na yitte yitte ak Pastef ci liggéey sëñ Tuubaa lu mu ci mënul amut yitte sëñ Tuubaa moom yitte moo ko sos te bu luñ ko koy sàmmee rek lu luñ ci bëgg mën na ci am moo tax fi di ma fekk sant naa ci lool yokku na lool xoolal naa ko Cheikh Mouhamadou Mountakha danañ ko nett li ñu fi gis xam nañ ne fa mu nekk mi ngi yëg mi ngi xam mi ngi bég itam xam ne li mu fi bëgg mi ngi koy am kon nag liñ ñu koy tënkee mooy ñaan yéen ñi koy sant su soññ sàmm su borom bàyyi leen fii te wéral leen sëñ Atou ma dem jéego buñ fi dox ci aw yiw na ko fekk fa mu nekk waaye nag na àgg sëñ Mountakha ñëw sa léemu si ko te di fi ñëw ñëwee nag bu mu am jéemu